tey ba muy desi di feeñaat a yaram wa de foofu ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neefi tey duñu beew waaye yiw nga te waaye nga te forox nga te foog nga delu na fi tey sellal yàlla yàlla jox barke soxna jaara lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara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 mos julli te wirdul doole kay sangam tuubal daldi wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji yekk jigéenam soxnante njaayi mbokkam faaloon maaram loolaawal sëñ jaabaan sëñ jaabaan rekki jaamam jam say la jam baatil bambal kami xaadam cog jébbal kaalanta dem rootil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 kawsara la daanaane moo taxoon musul leenam bu guddee mu dem diiwaan baa aras di waxtaani naan ta kawsara ak leer ya moo taxoon musul leenam lee yónneen bi ñëw di ko rekku mu mel ni kiimaan mu rankay ngeniil ndax ngoolaal mu deewal saamaan muy wool ay jabar ak naa jooju doon demaa waar tànk doon demal banu fi soxna saadu ak waar soxna jaara yoom nga ndam te yaa gore maam soxna ba maam ji yor borom nga li te fii jafe na cib jaam ma sala dox di waxtaani soxna jaara ma sala dox di waxtaani ma sa jóg di seetaan ma sa wax ba ñettaani moo taraxal saytaani ma sa dox caag raw sax day leen ta jig maasam ci la baa di waxtaanam lool moo di ban xaasam soxna jaara moo ba ni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 war na kànkal saate sulux yam defal maamor moo waral tabax jiital ak basam bu ñuy tooyal kaa tuuba tuuba sulux defal maamor moo waral tabax jiital ak basam bu ñuy tooyal kaa tuuba tey njàppam la waral njàngay leeg bu sëriñ yi xeeñoo foofu soxlaal wa tamuy daw ku nekk ngay teeral ruy ba mu daa jox maam moor moo waral kade suukar koog ya moo di sun kaas yi nguur daa puutar njalla mu daa jox maam moor moo waral mu di sow koy sootu doo baabal soxna jaara moo jaar dew fal bu doo baabal ñeenu faab liitar boole suukar ak meew noonu soxna saa yora tiitar wal ga mu daawal moo tax daar yëpp naa kunkaŋ boole kunkaŋ ak kàndaŋ bu njëlee ñu naa biñ bañ gaa waral mboolem daari ru joxir joxi soxna jaara moo mën a wal ñëpp a ngi lu luxi luxi waaw waa jéggi jaara moo amu xew ñëpp a ngi fan naa jaara soxna yaa ngi monjo na ñax na ñaxi bu sa moo ayet tey ñëpp a ngi jàmmax jàmmaxi maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara soxna jaara soxna jaara moo di dey ba mi desi di feeñaat teeram wa de foow ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neefi tey duñu beew waayi nga te waayi te forox nga te foow nga jelu na fi des yàllal